Eh, ginaaw bañ la York ba pare dama lay jox kàddu gi nga nuyo ak euh, ñu ñuy sétal ak ma ngi lay ma ngi lay nuyu di la gërëm di nuyu également ñi ñuy sétal ñep di wax fierté bi ma am tay à travers yow ce médium de communication bi nga créel sa bopp euh, ma mën waxtaan ak aduna euh, waxtaan ak Sénégal waxtaan ak doomi Tëngéej mhm. fierté bobu nak yow xam nga lutax ma am ko. Mhm. da nga nekk ndaw yàlla boole mhm. nga nekk élève je pense que boobu yaa ngi woon en classe de seconde mu mhm. nga nekk sama rek ñu am des relations particulières ma gis aussi sa évolution bi ngay nem université Kason Berger à Saint-Louis di def sa maîtrise en sociologie ba bi nga ñëwee di def sa jàng ci journalisme ba ngay génn dem ci euh, Oxygène si je ne m'abuse euh, ma xool sa parcours toujours am fierté ba parce que tu t'es toi-même frayé ton propre chemin mhm. Lolo, mbégte ci man mhm. aussi participer ci li ma invité Seydou euh, mbégte ci dañ parce que ñun xam nañ directeur cabinet ku toll ni Mbaye Jacques Diop mu nekk du benn mhm. yoon ñaar yoon te yoon maire bu euh, Seydou euh, nga jël Diop Euh, sa taxawaay tey jii loolu moo waral pour feddali li nga xam ne moom la Mbaye Jacques ci Tëngéej euh, moo tax nga ne ndonali faaw nga samp sa ci biir élection locale yi. waaw loolu bokk na ci mm-hmm. parce que euh, ku ma xam man xam ne li ñuy wax président Mbaye Jacques Diop moo ma mettre le pied à l'étrier. Mm-hmm. yow xam nga ci dara. ma servir ko déjà bi ma amee suma moom moo may bourse ma dem jàngi bitim rew te bima ma bitim rew administration collectivité territoriale la spécialisé won bobu ñu ngi dogo wax décentralisation ci mm. Sénégal mais yow moom a ko ci université bima paré daf ma indi ci wétam ma nek ak mom fukki at ma nek ko directeur de cabinet euh, ci mairie euh kon expérience euh bi muy avant muy génn aduna yi parti bi mu créé won euh, muy PPC mu bayiko ci sama ay loxo muy ndono 10 lo xamne kenn ku nek ci ki doon and ak Mbaye Jacques Diop am nga ci patch bo wara assumer mais man lañ ko tek sama loxo tay mu góorgóorlu nak ba parti bi en 2009 ak 2014 bokku ñu won ci élection locale te tënge ci mhm. waaye ma góorgóorlu biñ mako bayilé bàyyilee à partir de 2015 2016 tey góorgóorlu na ba élection locale yu ñu jëm euh, parti bi présenté dans ay liste partout à Rufisque té di am yaakaar man ma jité liste ville bi donne à une partie la ci raison yi tax mhm. ndax boy incarner nit dang koy incarner dans toute sa valeur mais surtout ak engagement bi mu pour tënge ci mhm. mais l'un li pap et qui me paraît le plus important moy situation bi tëngeej tollu absolument tëngeej dafa delu ginnaw ci Sénégal tëngeej dafa rap. doomi tëngeej yi amatuñu fierté di wax ne ñun tëngeej lañu dëkk bu ko waa doomu Cees waree wax waa Ndar war ko wax waa Ndakaar war ko wax tey doomu tëngeej amatul fierté boobu parce que fu mu ne tëngeej laa dëkk rek lañ la koy mandargaale mooy sa dëkk bi moo gën a salte ci senegal kon fierté boobu ak dignité boobu il faut ñu delloo ko doomu tëngeej loolu nag amul cinquante solution man sama jaar-jaar sama parcours sama xam dëkk bi ak

ma posé ma candidature à la ville de Rufisque. ban bilan ngay tiré ci euh, début campagne ba parce que ni ngi ci njeexital li bilan bi ngay tiré. Pape man damay sant damay damay sante yalla xam nga lutax ma sante yalla mooy fépp fo dem ci dëkk bi nit ñi ñu ngi saafante ak yow nit ñi ñu ngi lay wax naan yow ya fi ne tey ni nga taxawé fonk nañ dem parce que dama leen wax ne leen man sama ambition du jël Tëngéej dugal ko ci camp au pouvoir wala camp au opposition sama ambition moy ñun doomu Tëngéej en intelligence collective ñu mobiliser wu bole suñu ay doole def ko pour suñu dëkk loolu wessuna ay camp de pouvoir ay camp partisan wala camp d'opposition dafa nek le premier niveau Bo xamné dafa rassurer les populations de Rufisque lenen li ñu xol ñom xamné man bala may nek candidat am problème yu posé wu fi ci Tëngéej Pape Alé Mm-hmm. man ma ci taxaw tem ba régler ko je ne suis pas ministre de la république waye ñep gis nañ ne xexna def pour que Darou Rahman quartier bi ëpp solo tay ci Tëngéej 36000 habitants amul won poste de santé et maternité man mako xex bu 100 ut millions ci budget ministère de la santé Daw, ma waxtaan ci ak ministre de la santé ñu affecté ko maire commune de Rufisque Nord tay ñoo mm-hmm jon def naa ki démb mairie Amener bii am nañ problème fin du mois novembre ak décembre pour faire seen ay salaire le maire Daouda Niang woo na ñi mu war a woo ñëpp waaye man daf ma woo tombé ma nekk session budgétaire 14 heures 30 le ma yëgal affaire bi jafe-jafe yi dix neuf heures fekk na ma waxtaan ak ministre des finances ba état bi war jël en charge les salaires de la ville de Rufisque pour 400 millions mm-hmm. donc bëri na loo xam ne def naa ko ci dëkk bi te boobu tegaguma candidat à la kon tey waa Tëngéej xam nañ loolu xam nañ ne man xaaruma ba soxla di candidater pour jéem a def sama doole ci biir dëkk bi xale yi xam nañ ko jigéen ñi xam nañ ko mag ñi xam nañ ko parce que nag dama mës a jàpp ne booy politique li nga am da nga koy séddoog nit ñi. Mhm. booy politique li nga am da nga koy investir ci dëkk bi bu nit ñi soxlaa am tiis am bànneex ak lépp nga taxaw waaye nag aussi ngay xalaat pour nous gagner ce dëkk ci situation bi mu nek politique sociale def nañ ko waye surtout li waate nga jàpp ci ñun moy sama parcours euh, fi ma jaar sama jaar-jaar moo je suis le meilleur profil te waa Tëngéej ñoo wax du man mako wax parce que man je respecte tous mes adversaires et j'ai toujours fait preuve d'humilité waye waa Tëngéej ñoo ma yaay profil bi gën ci dëkk bi ah motax nak nag aussi ma wara mëna taxaw sama dëkk fi laay fanaan di xey di liggéeyi Ndakaaru sama njabot fi lañuy fanan di xey di jangi kon man awma lu ëpp tëngéej bi bima yàlla wërsëgale ma mën ko tëngéej la tabax sama kër tëngéej lay fanan fa la kon sooru dëkk bi moma ma ba taxna bima bokké sax ci coalition biñu tanné ko xamné japp ne né amul jaar-jaar bi ma am amul parcours bi ma am ma tek sama ndënd té loolu yi waa dañ ko rafetlu ci man ndax mënon na rek ne damay toppee bu élection yi jeexee bu ñu gañee amaana dinaa am responsabilité sangam dinañ ma def lii waaye j'ai dit pour l'intérêt de Rufisque loolu mënuma ko seetaan parce que bu ma ko seetaanoon it koo xam ne dang ñu fekk ci terrain bi li ñu fi ñu jaar jaaroo li ñu def ci dëkk bi defoo ko li ñu xam ci dëkk bi xamoo ko ëppoo ñoom njàng ëppoo ñu expérience politique a gestion de l'État wax fu dëgg yàlla man tey su ma nangoo ne rek damay topp sa ginnaaw bu boobaa aussi waa Tëngéej dinañ ma ko dinañ ma ko laaj motax bima ma samté sama ndit dé ko tek sama liste wat nga jën ci and ak man waaw euh, seydou euh, ginnaw euh, li nga xam modi walu assainissement bi si tëngéej dañuy wax timit li di terre bi terre bi dafa melni dafa xar ci digg bi tëngéej mu nekk hmm. jafe yi nga xam askanu tëngéej ñu koy dund tay bu ñuy xol sa programme fo ñu ci mënon wax par exemple ñett ba juróomi uh, ponk yu am solo yoo xam ne jàpp nga ne bu yàlla defoon nga doon meeru Tëngéej dañ ci taxaw yan doon. Pape Alé li nga wax c'est tellement pertinent moom laa doon wax démb bi ma demee ci benn quartier nee naa leen en réalité amatuñu benn Tëngéej mm-hmm. papale Alé tey ñetti Tëngéej la ñu dañoo am Tëngéej boo xam ne mu ngi ci ginnaaw autoroute à mm-hmm. am Tëngéej boo xam ne dafa nekk ci diggante autoroute à péage ak terre bi am tëngëj bu nekk diggante terre bi ak géej hmm. foofa les réponses ne peuvent pas être les mêmes lu tax ma wax loolu diggante terre bi ak géej foofu mooy zone d'utilité économique bi am tëngëj nga xam dëkk bi mooy centre ville hmm. nga gis ne lii indi centre ville mooy excroissance su marché central ni mu ni mu ni mu demee ba tawee ku fépp hmm. ba yegg si ba ci route nationale bi yow xam nga Tëngéej route nationale bi tey du suñu fierté mhm. foofa li ñu war a njëkk a def mooy il faut que ñu décongestionné maanaam il faut que ñu wàññi nit ñi ni ñu progressé ba ñëw ci biir route nationale bi pour di lal di jaay et cetera il faut qu'on remette de l'ordre foofu ñaareel bi ci wàllu assenisement zone boobu xam nga ne foofu canaux d'assainissement yi existé na fa mhm. Euh, yi gën a yàgg parce que foofu moo doon zone d'utilité fa la tubaab bi nekkoon donc def nañ fa ay réseau boo demee këri kaw tey canal Baudin foofu la nekk ci wàllu assainissement mais canal Baudin nekk kanal bu màgget ñu ngi ko réhabilité woon en deux mille en 1994 dañ ko war a réhabilité waat station de pompage bi nekk au bout ñu yokk capacité yi pour que zone këri kaw bi mu nekk une zone assainie parce que loolu lépp mu ngi dépendre ci canal Baudin leneen di jëm ci booru këri suuf ak ay lew naak yooyu Nous, c'est les canaux à ciel ouvert Il existait, moi, le réseau aujourd'hui canal bobou euh, Promoville nous ngi fermé. donc ce qu'il faut éviter c'est que les mairies, de fonds, nous fermer ko ñu ñëw cantines tout autour c'est-à-dire que cantinisation bi ñu def ci dëkk bi tey lorange ci voit l'esthétique urbaine avec l'aménagement du territoire maintenant si vous avez après le terre jëm vers autoroute à péage vous lañuy constater ne les quartiers les quartiers non lotis mhm. faut la gën bëgg réponse bi en matière d'assainissement dafa nekk réponse boo xam à ay réseau de proximité nga mën def c'est les réseaux faibles diamètre population yi tey ñooy jël effort di cotiser famille bu nekk cent francs pour assainir seen quartier foofu laa ne municipalité yi à la fois la commune les différentes communes avec la ville fi ñu mën a population moi, njabot gi tay ak aduna ni mu nga nar ko francs pour mu cotiser pour def assainissement collectif mais au moins vous faites connaître mairie bu ci nek dugal nga ci sa loxo ñi len ci étude technique ñi jàppale len ci euh, matériel ay tuyaux ay ay matériaux de construction contribution population yi dina wàcc te dinañ am un réseau d'assainissement pour xam c'est bien étudié mm. mais comme tu as dit buñu waxé ñetti tëngéej moom mo am bo bëggé décongestionner il faut nga créer de nouveaux pôles économiques. Mm-hmm. et jàpp naa ne tey diggante sant yàlla ak Rufisque de Cité Taco et tout ça il faut qu'on ait un marché à ce niveau-là un marché moderne la même chose war nañ ko am digënté Guy Marius ak Arafat Non, rek ngay mëna décongestionner nga réaliser ko en partenariat public-privé pour que les commerçants bañ ñëw ñu leen di laaj yenn montant yi pour ñu délocaliser ça c'est la première chose mais xam nga bu ñu waxee ñetti Tëngéej li mu njëkk poser question de mobilité dans la ville. absolument tey Tëngéej dem bi ay dikk bi dafa daga tembe. Mm-hmm. donc plan de circulation il faut que ñu ñu repenser ko en relation ak acteurs du transport yi nekk ci Tëngéej boo defee sa plan de circulation renégocier. waxtaan ak acteurs du transport yi sur les points de stationnement réguliers ngeen régulariser ko parce que Tëngéej nag tey boo jëlee gaaru foo boo jëlee quartier bu mel ni Kër Issouf dañ fa recenser. 21 gares routières point de départ de de taxi n'est pas possible faut axifier quartier Bob. il faut que donc dans l'absolu nous waxtaan avec les acteurs du transport nous d'accord ne ci biir dëkk bi à ak fii fi les points de stationnement autorisés taxi carré garé foofu ñu aménager ko nous ñi xam ne bu ñu demee nous dinañ jël taxi bi leen di tel endroit loolu plan de circulation bi ñu war conceptualiser buñ ko quels sont les axes routiers prioritaires yi ñu dans le cadre du développement de la voirie intérieure donc il faut mu ait ak cohérence on peut pas faire une route comme ça au pied levé di quartier bo peut-être transport Il faut le gëna donc plan de circulation bi ñu négocier avec les acteurs y compris l'autorité administrative quel préfet la police euh, les transporteurs et les chauffeurs mais il faut que mu une concertation buñ ci d'accordé nak ñu les axes routiers prioritaires à faire à travers la ville pour améliorer euh, la mobilité mais bokku na ci programme bi suñu gis-gis euh, yi. Hmm. xam nga euh, la ville elle est pas compétente pour s'occuper des questions de lycée de collège lycée c'est l'État les collèges c'est le conseil départemental les communes ñoyor les les infrastructures du primaire et du préscolaire mais la ville dafa une vocation générale de compétence loolu motax fi may gëna accentuer sama effort Inch'Allah, euh, inshallah le 23 bu ñu war Tëngéej dénkee seen baat ci njang bi euh, na ci ci primaire bi il faut ñu accompagner les yi pour que dans les établissements scolaires déjà ñu baña am ces établissements scolaires non sécurisés il faut que ñu murer clôturer ces établissements mais un élément important c'est l'hygiène dans amul ay bloc d'hygiène euh, lolu c'est c'est très compliqué Mais yi y a mais amuñu bloc ñu démé toilettes. donc il faut que ñu régler Si ci euh jang mu en dehors du bac et tout ça les étudiants mm-hmm. on a deux axes nga xam dañ leen affecté ci ay à l'intérieur du pays et trop souvent c'est des étudiants qui ont un dañuy problème de logement il faut mm. que lolu ñu accompagner étudiants yi dëkk train di jàngee ji Dakar seen grand problème mooy le problème de leur transport journalier hmm. Dans seen ay wayjur mënuñ leen fayal étudiant euh, école bi ba chaque jour ñu jox entre 3 000 et 4 000 francs pour ñu jàngi famille yi mën loolu de tey bëriwul il faut que ñu réfléchir ci naka la ñuy pour am un système de transport scolaire boo xam day chaque jour di yóbbu xale yi ñuy Dakar à des tarifs subventionnés bu on a de deux choses soit faire des acquisitions de bus mais li ma gën a jàpp ñu Dakar un partenariat qui fait que la ville viendra subventionner le système de transport scolaire pour que les étudiants ne payent pas les mêmes tarifs que nous avons fait. ne ñoo euh, euh, l'éducation euh, aussi promouvoir enseignement technique formation professionnelle Allez, t'es tey dëkk un marché de l'emploi marcher mm-hmm. Marché de l'emploi de femmes une réalité. Un, man, ça me fait très mal que ay doomi dem Parcelles Sénie, qui mon ami Moussa a di ñaan prise en charge scolaire pour s'en ay Alors que nous avons quatre collectivités territoriales dans la ville, quatre communes, une trois communes et une ville. C'est injuste. Ñaarel bi une prise en charge scolaire japp l'année war nañ flécher sur des métiers sur des formations et aboutir à une insertion professionnelle combien d'enfants nous Nous am master 2 en en banque finance euh, en commerce international en relations internationales amul avons euh, insertion par contre nous faisons une prise en charge scolaire orienté sur des établissements comme ay CNFQP G15 sur des métiers d'avenir électromécanique électricité industrielle chaudronnerie industrielle faut qu'il y ait plus de chances pour les jeunes d'être inséré professionnellement. Donc, on ne va plus faire de distribution de prise en charge. Comme ça, il faut que prise en charge, y, nous soyons fléchés sur des formations et aboutir à une meilleure insertion. Enfin, je termine sur les questions de santé. C'est les questions importantes. L'hôpital Yusumbargan Diop est un établissement de santé de niveau 2, État gère. Mais on se battra aussi pour qu'à côté de l'État, une ville nga xamné ñoy de comités ci comité de gestion bi mais nous duggal suñu loxo bu baax ci biir hôpital notamment dem fa les grands problèmes sont liés à aux unités de la pédiatrie ak médecine générale hospitalisation euh, bloc d'urgence bi nga xamné ne doon poser problème nous tay une entreprise bu ko jël en charge lolu aussi un partenariat entre euh, collectivité territoriale état privées. privé mais ci walu santé le combat qu'on doit mener moi, je district bi nga xam ne ville bi gérer au moins qu'on ait une unité d'urgence là-bas avec une banque de sang parce que l'OLU, mooy les besoins prioritaires là-bas parce qu'il y a un excellent travail qui est en train d'être fait par le docteur Tcham. mais xam nga loolu la que beaucoup de réaliser mhm. il faut nga am alal absolument enjeu bi ñu am tëngeej foo jëlee Faut foo jëlee voilà xam nga enjeu véritable bi Je am boo xoolee tey la ville de Rufisque sur son budget, on est aux environs, mais véritablement recouvré. Hmm. On est aux environs sur les meilleures années, 4 milliards 5, 4 milliards. Mais on a une masse salariale de 2 milliards 4 ah. sur l'année. Ça veut dire que ce marge de... budget de boolee maintenant des dépenses des secours a subventions qui font presque 9 millions 900 millions sur l'année mais tu n'as plus de moyens pour investir. absolument. Donc il faut que nous stabiliser la masse salariale. Hmm. Pour stabiliser ma salaire stabiliser ne il faut pas venir dire que oui je suis élu je vais continuer à faire des recrutements non il faut stabiliser Il fa respecter ses droits, mais réorganiser celui-ci pour que les gens aussi se mettent au travail mm-hmm. non non les travailleurs ont des droits on respecte les droits des travailleurs nous maintenir les réorganiser mais on mettra tout le monde au travail parce que aussi un salaire, ça se mérite. Mhm. il faut que nous accroître nos capacités de mobilisation de recettes. xam nga euh, li indi situation bi ma intervenir pour ñu un salaire ou un Moi, on a connu une chute drastique de ressources de recettes fiscales euh, sur euh, sur 2021. depuis l'avènement de la contribution économique locale le tout le monde cote euh, contribution économique locale bi est ci yenn unité industrielle Rati mhm. rax ci Doli, yi rax ci doli convention minière ak état Bon, pendant 15 ans Sokosim, waratu dañ ko exonéré won dem mais exonération bi biñ koy def ci convention bi dañu pour que au lieu de fay environ 2,6 milliards au titre de la contribution économique locale et du foncier bâti 1 milliard 3 lañ ko né won nakoy fay muy la moitié mhm. et 1 milliard 3 on avait dit ce possible nako fay au titre de la responsabilité sociétale mais lolou tay convention bi dirna en avril 2021 je me battrai man pour que li ce possible wara fay tengé ce possible fay ko tengé ci et je l'ai dit autant dina xex pour que ce possible continue di am compétitivité parce que nous, moy suñu ndjari ñun wa tengé Hmm. mais autant li mu war def ci dëkk bi d'abord ci fay l'impôt dina ko def ñaarel bi duma am ak Sococim ay relation d'un maire qui va aller là-bas demander du carburant wala ay xaru tabaski parce que ku la ëmb sa sànqal ëmb sa sutura hmm. japp naa ne maire Tëngéej taxawayam dafa wara nek taxaway buy protéger ñep waye kuy mettre aussi nit ñi ci yoon bi len yoon tek pour que ñu respecter engagement yi enfin il y a un débat qu'on doit poser. Sénélec, y a au ne toutes ces unités de production importantes. te hmm. sont te basé mais si sûr, le sel bi ba léegi dañu centraliser dañu centraliser Sénélec versé comme contribution économique locale dañ ko centraliser au niveau de Dakar alors que Sénélec dafa doon un patent à la ville de Rufisque c'était presque. 600 millions que Sénélec paye. Aujourd'hui, tout a été centralisé sur Dakar, mais il faut qu'on se batte pour que li Sénélecs soient parce que ça ne se justifie pas la selle elle la deux composantes valeur ajoutée valeur locative il faut que ben composante composantes, ñu donc c'est ça les combats que nous devons mener am investissement c'est des investissements rentables bu aussi il faut utiliser les voies du partenariat public-privé mais DEFCO aussi de manière très transparente parce que si vous avez marché tabac marché il n'y a pas besoin de prendre l'argent de la mairie pour investir mais tu feras un appel à candidature pour recruter un promoteur privé de manière transparente mu DEFCO, offre tabac marché ngeen d'accord sur les modalités de partage des recettes le temps que Mamou amortisse son investissement on devra forcément passer par ces chemins-là parce que à pour bi bi bien que war nañ pour assiette bi. Seydou euh, de euh, la ah. explication yi leer euh, jëm ci li nga namm pour Tëngéej di fàttali rek na candidat nga pour mairie de la ville de et que sa parti parti pour le progrès la citoyenneté. bi nga xam ne um, kii fa mbay chaque diop moko mom jité mom yow yaay nek l'héritier té ji nga taxaw ak sa expérience bi nga am ci walu décentralisation fas jëmmal li nga ne mebet ak bëgg-bëgg bi nga am ci tëggee ma ngi lay sante di la gërëm jërëjëf vraiment man ma lay gërëm di la sante di am toujours plaisir di waxtaan ak yow ngay suñu xarit di la ñaanal yoonu jam ci liggéey bi ngay def mm-hmm. xam nañ lépp xam nañ la kon ñu ngi lay gëna ñaanal ci yoon wi nga ne jërëjëf Pape Alé merci à tes auditeurs et